ngay tontu sénégalais bu jàpp ne en réalité Karim ne voulait pas participer à cette élection là. dama naan leen Karim en réalité bëggoon na participer. mais yéen lan lan nga ñuy tegal comme preuve euh, pour démonter. Euh, d'abord le fait d'abord le fait de fournir un dossier de candidature. ça ne veut rien dire. Ah, ah, pourquoi ça ne rien dire ça veut tout dire. Hmm. quand même tout dire. jeeg bu gàddu euh, pañeem walla lekkatam dem marché di ndug mu ni day taal añ ñu ni ko ça ne veut rien yow fas yéene wuloo taal añ ñu teg ko fan c'est facile Karim su bëggul woon bokk du fournir un dossier de candidature man loolu laa jàpp hmm. keneen mën na jàpp leneen hmm. mais tous les militants du PDS loolu la ñu jàpp que Karim su bëggul woon bokk d'abord du wax ni bëgg naa bokk un ñaar du wax ni day déposer un dossier de candidature se faire ne et se mettre euh, dans les dispositions d'un candidat def na lépp def na lépp ba le 20 janvier malgré tout malgré même le le, le décret bi génn di wax ni il n'est plus français génn la le 17 conseil constitutionnel di jël de décision le 20 conseil constitutionnel teg si tànkam ni en fait dossier kii bi dafa war a rétroactif mais mais peut-être ça n'a pas de sens xam nga conseil lan lay sanctionner lan lay sanctionner mooy la fausse information ce n'est pas une fausse information xaaral rek conseil constitutionnel li muy li mu li mu sanctionner je pense mooy le fait que Karim def une déclaration sur l'honneur tout en sachant que bi muy wax ne sa candidature est conforme aux dispositions de la Constitution. Parmi ces dispositions, l'article 28, mmh. tout en sachant que moom il ne tenait pas entre ses mains son décret actant sa perte de nationalité. loolu yëpp loolu yëpp. et ça loolu yëpp ça c'est un parjure. ce n'est pas un par mais on l'attaque pour parjure. c'est un parjure. non non non non non parce que lorsqu'il déclarait sur l'honneur être de nationalité exclusive sénégalaise. Il ne l'était pas encore. Qui le prouve? Parce que la déclaration euh, nu mu la renonciation la, doit être actée par décret et c'était pas encore acté par décret. loolooy wax en tout le processus était engagé le processus était engagé. d'accord et, il était il détenait par devers lui une attestation de l'ambassade de France. L'attestation qui, hmm, qui, qui avait renoncé façon définitive ce n'est que, ce la perte qu de la nationalité. le code textes. civil, c'est le code qui mhm. dans le cas de Karim Wade, plus de 19 ans, qui, dem qui demande la renonciation la nationalité, à la nationalité, euh, l'article 23-4, l'effectivité c'est c'est effectif à la publication du décret le décret a été publié a été publié le 17 janvier mhm. donc Karim bi muy def déclaration sur l'honneur il n'avait encore la preuve que la France a accepté euh, sa la nationalité en fait et peut-être que conseil loolu la sanctionné peut-être que peut-être que on n'est pas sûr parce conseil... sûr le sur la base des preuves sur la base de pièces la pièce bu mu sukkandiku pour invalider la candidature de Karim mooy le décret nous nous retenons que le conseil a siégé le 20 n'est-ce pas. mais sauf que le processus est parti avant. ah vous vous refusez le processus quand nous nous l'évoquons da ngeen di processus ñun suñ ko dee évoqué sur le la renonciation mais ngeen naan le processus. c'est parti avant non non non on ne peut pas faire deux poids deux mesures te ñun loolu la ñuy wax. mais le processus de dépôt c'est pourquoi la de dépôt laa wax des candidatures. oui c'était mois de décembre. te ba muy déposer mois de décembre. Mhm. fo pièces yi dafa war a mot. les neuf pièces dafa war a mot. dafa war a mot waaw. les neuf pièces li koy complété mooy la déclaration sur l'honneur mais cette déclaration. sur daf si bokk. waaw mooy la déclaration sur l'honneur mhm. mais y a parjure. par rapport à cette déclaration sur l'honneur non je ne peux pas quand même cautionner lii ngay wax il n'y a aucune parjure amul parjure parce que Karim était de bonne foi ba muy def sa déclaration compte tenu du processus de renonciation ba mu engagé depuis 2018 depuis 2018 n'est-ce pas mu renouveler ko en octobre 2023 décret bi génn seulement maintenant loolu on ne peut pas lui reprocher la sortie du Alors, décret à cette date-là. Oui. Qu'est-ce qu'il lui dit mm il signait sa déclaration que décret bi dina génn au mois de janvier. La bon foi. La bonne foi. La bonne foi ne peut pas tout faire. Est-ce un délit? Est-ce délit la? waaw mais. non dama lay laaj. déclaration sur l'honneur. waruñu dem ba ci biir. Mhm. ñu yëg ne am na lu exactul ci li nga wax. ci ban moment la ñu yëg ni amul ci ban moment. bi ñu déposé recours yi. non waaw kañ la kañ la ko conseil constitutionnel vidé. le 20. décret bi génnul woon le 17. au moment ba ba conseil constitutionnel di vidé parce que processus la woon au moment ba conseil constitutionnel di vidé. seen interprète bu leen neexee ngeen. interpréter ah yow da ngay interpréter. yéen ñëpp da ngeen di interpréter euh, bu leen neexee ngeen interpréter non non. non da ngeen di interpréter. à partir du moment où non. il déclare sur l'honneur qu'il est exclusivement de nationalité sénégalaise. et qu'on se processus et qu'on se rend compte dans un que c'était pas encore acté par décret mhm. il y a problème à quel moment damay laaj à quel moment la ñu ko rendre compte que ce n'était pas acté au moment bañ koy bañ koy vider le 20 janvier le décret était là donc yéen vous auriez préféré que ñu tenir compte euh, du décret et de la date de délibération du 20 janvier amul lu ñuy préféré amul lu ñuy préféré conseil constitutionnel moo war a def lu mu war a def conseil constitutionnel moo war ba muy juger ba muy vider le dossier n'est-ce pas il s'est basé sur benn këyit boo xam ne bi dañ ko tirer sur un site sans constat d'huissier xam nga ce genre de document là dañ ko war dañ dañ conseil constitutionnel balaa mu koy recevoir huissier daf ko war a constater des sites des documents électroniques yoo xam ni dañ ko tirer dans des sites mënul nekk pièce bu ñu mën a verser dans un dossier juridique su fekkee ni huissier constaté wu ko lii ñu def ci recours bi contre Karim uniquement benn benn capture benn feuille buy wane ni Karim buy wax ni Karim il est il est inscrit sur les listes électorales française amul sax constat d'huissier pourtant le conseil si la sukkandiku te sukkandikuwul sur un décret encore une fois dama ni le conseil dafa def lu ko neex contre nous et contre Karim cette décision est injuste elle est inacceptable et elle prouve que le régime s'acharne contre Karim alors et le régime utilise les cours et tribunaux pour combattre ses adversaires loolu loolu dañ koy préciser bu ñuy moo tax beneen interprétation duñ ko mën a nangu dañ ne la mission du juge constitutionnel consiste mhm. à garantir le respect de la Constitution. Oui. à veiller à l'équilibre des pouvoirs et à leur dévolution démocratique. Mm -hmm. L'unique boussole est et doit être la Constitution et les lois applicables aux litiges qui sont soumis à son jugement. Mhm. bu ñu taxawee foofu. Mhm. mooy le conseil constitutionnel bu ñu taxawee foofu nen foofu kese. tout mun nañ. jox conseil constitutionnel dëgg ne dafa veiller au respect de la constitution au respect de l'article 28 de la constitution mais démb Amadou Sall dafa wax lu am solo dafa ne conseil constitutionnel c'est un organe juridictionnel et politique, euh, conseil tamit beaucoup plus politique voilà. que juridictionnel et, et, et pour cette élection là euh, dañ doon wax parrainage on pensait que sa allait très serré mais le conseil a joué un rôle éminemment politique ci wàll boobu xëy na mënoon conseil mënoon na tenir compte euh, du versement du décret de perte de nationalité euh, avant muy délibérer le 20 janvier mhm. di joxe la liste définitive peut-être que foofu ngeen mën a jaar pour wax ne il y avait une volonté délibérée d'éliminer Karim foofu la ñu mën a jaar. waaw ñun amuñu fenn fu ñuy jaar dañuy constater les faits les fait sont que conseil constitutionnel euh, euh, Amadou Sall wax na dëgg mais man damay dama dama siy dolli sax ni conseil constitutionnel juridiction la boo xam ne bi elle est beaucoup plus politique te dans ce cas là cas bi conseil constitutionnel dafa war épouser l'esprit de la de la de la compétition de la compétition mm dafa war a garantir aux citoyens qui veulent participer en tant que candidat dafa leen war a garantir seen droit de participer mais pas mu leen koy xañ alors le conseil constitutionnel si lépp lu mu def d'abord les parrainages les parrainages am na beaucoup yoo xam ni c'est incompréhensible nit indi cléwam ñu dugal ñu ni voilà euh, électeurs yi on ne les retrouve pas dans le fichier mais wo fu ñu nekk Sénégal ji benn fichier moo fi am 7 millions délecteur ku indi parrainage nga dugal ko plus de un million de parrains lu ëpp un million de parrains fii si différent candidats yi ñu indi soo ko dajalee ñu ni nekkuñu si fichier bi loolu rek loolu rek contentieux bu grave la te conseil constitutionnel def na ko. mais loolu ah su ko defee tenir si compte pour éliminer ay candidats mu ngi def loo xam ne lii c'est contraire si lu ñu koy séentu moom dafa war a garantir pour nit ñi participer à l'élection man je ne suis pas de ceux qui disent que oui Sénégal waruñu am war a waruñu xam nga man je suis tout à fait d'accord que ñu am cent candidats ça ne me dérange dans ma conception des choses si sama conception des choses mën nañu am mille partis politiques nit ñi naan trois cent partis c'est trop c'est yooyu yëpp ay wax la mën nañu am mille partis mais seulement dañu war a am capacité ak intelligence organiser ko. ce que tu veux dire mooy dans le contexte politique actuel. le dialogue politique qu'il y eu. les dispositions yi nga xam ne moom la parti politique bi eh, yi nekk avec le pouvoir. Oui. Euh, conseil waroon na euh, épouser un peu l'esprit d'ouverture en laissant passer la candidature de Karim Wade. parce que non pas pas la candidature de Karim Wade mais toutes les candidatures qui devaient passer. en laissant en validant toutes les vingt. c'est-à-dire au lieu candidatures non. je ne sais pas ça dépend candidature bu war a jàll ñu mu jàll bu warul jàll nag par exemple am na ay yoo xam ni nit ñi dañu ñëw indi 1000 parrains xam nga loolu aussi wax dëgg yàlla wala nga ñëw indi euh, euh, euh, indi woo extrait casier judiciaire yooyu mooy loolu mooy disposition ba nga xam ne mii dafa war a def fexe ñu observer respecter la constitution loolu mënuñu ko jalgati mënuñu ci ànd suñ ne candidat à la présidence dossier bi lii la war a comporter le minimum moo di pièces yi quand même nañu mot parce que ku motlewul pièce nag mënuñu nekk sa avocat mais ña nga xam ne ñi motal nañu seen ay pièces indi seen ay parrainage mais parrainage yi. tey ngaa lijjanti sa cas. mais maa ngi si ci situation bi opposition bi kenn faale wu leen nga nag man lijjanti leen seen bopp gis nga nag contrairement à ce que vous pensez le parti démocratique sénégalais ñun loolu la ñu yare ñun nous sommes des démocrates. ku mënul am parrainage. man waruloo bokk ci élection présidentielle. waxuma loolu. waxuma ku mënul am lu wax naa ko léegi yow. waaw ah. déglu wóoruma dama ni koo xam ne motle wuloo am parrainage si motle la bokk ku amul parrainage motle parce que su fekkee ni parrainage citoyen la on te demande un minimum minimum boobu soo ko amulee motle buloo ko doo bokk man mënuma wax ni ku motlewul parrainage bu mu bokk mais damay wax ni ñun ça c'est l'esprit du Parti démocratique sénégalais nous ne sommes pas sectaires nous sommes des démocrates mais mais waaw mais gars yi dañ leen seetaan ko dañ leen dafa mel ni opposition bi dañ leen ko xaw a yéene sax waaw euh, mais euh, maa ngi ñëw maa ngi ñëw man man maa ngi ñëw. dañ leen ko xaw a yéene. waaw s'il le faut que jàpp nañ ne dialogue bi vous avez vous avez vous avez trahi. Euh, législative yi dem ngeen ba ci biir euh, ngeen change mind ngeen dem ba à l'Assemblée nationale euh, ngeen jël seen yoonu bopp wala sur beaucoup de votes de loi vous avez un peu donné un coup de pouce xam nga ñuy wax loolu xam nga ñuy wax loolu dañ leen ko xaw a yéene ah mais c'est parce que xamuñu le parti démocratique sénégalais mais mm. xamuñu aussi le président Abdoulaye Wade yow xam nga tuuti le président Abdoulaye Wade xam nga ni esprit wam d'ouverture mais président Ablaye Wade moom moo fi indi avec ses compagnons de l'époque euh, xeex ba tey ñuy dem passage obligatoire à l'isoloir en 89 loolu amu fi woon Sénégal da nga daan di voter toog devant le chef de quartier le commerçant du du du coin ak ñëpp ñu toog nga ñëw tànn la ngay tànn li dugal ko ci urne bi ñoom ñëpp di la xool. président Wade ak ses compagnons de l'opposition de de de l'époque ñoom ñoo xeex Sénégal ba ñu indi le passage obligatoire à l'isoloir ak yeneen ak yeneen ñun au PDS nous fonctionnons comme ça dëgg la nous avons nos problèmes mais dañuy concevoir Sénégal dafa war a nekk réewu démocratie suñ ko dee porter le combat ñëpp mën nañ ci profiter. nous ne faisons pas de de distinction entre kii moo nekk fii kii moo nekk fii ñun c'est le principe d'un Sénégal démocratique alors conseil constitutionnel fu ñu ko doon séntu moo di mu doxal doxalin buy permettre ku war a participer participer mais pas koo xam ni kii war nga mën a participer mu lay xañ sa participation lii mu def avec Karim Wade ils ont beaucoup plus dañu dañu dañu teg seen tànk surtout si pour faagaagal ko plutôt ko pour permettre ko mu jàll parce que su fekkoon ni c'était le contraire dañuy tenir compte au moment le 20 janvier ba ñuy ba ñuy vider le dossier du contentieux ñu ni à ah, à ce moment-là même il y a un décret qui prouve que Karim Meïssa Wade n'est plus français donc il est de nationalité exclusive sénégalaise mais defuñu ko dañu ne rek bon puisque indi nañu benn këyit buy wane ni Karim Wade mu ngi ci ay liste française boo xam ne bi kenn attesté wu ko huissier constaté wu ko sax ñu tenir compte sur ce dossier sur mais, cette mais, pièce là mais, contre un décret signé par le premier ministre français non xam nga yooyu xam nga nit ñi dañuy dañuy négliger ces aspects là mais à la limite c'est grave mais mais mais mais xam nga Maguette bu ñu revenir ci le droit. Mhm. en fait je je avec un haut responsable du pouvoir et je lui ai dit mais Karim Wade waroon nañ ko bàyyi quand mu participer à cette élection. mais du question bàyyi ko je je trouve qu'il a payé un tudd un prix trop élevé mu ne dafa mel ni ñoom daal dans au niveau du pouvoir ñoom ils auraient souhaité que Karim Wade participe mais au niveau du conseil constitutionnel. le filet était trop gros c'est-à-dire est-ce que conseil constitutionnel dina créer jurisprudence en fermant les yeux euh, je ne vais pas appeler ça sur sur une euh, sur une erreur ou sur une fausse déclaration sur une fausse information euh, alors que la perte de la nationalité est actée à partir du 17 janvier. xaar xaar xaar xaar muy benn. est-ce que conseil constitutionnel am na droit euh, créer jurisprudence bu mel c'est-à-dire fermer les yeux au nom de la volonté euh, de tout le monde de voir Karim Wade prendre part à cette élection est-ce que aussi war nañu euh, tordre le droit non amul tordre le droit xam nga conseil constitutionnel yaa ngi wax jurisprudence gis nga ci affaire saisine bi bi bi réclamation bi euh, Amadou Ba def par personne interposée mais respecte quand même Sall. qu'on se respecte mais respecte-le dama si si disposition bi euh, gis nga en 2019 amoon na jurisprudence laquelle. conseil constitutionnel euh, ñun ñu ngi rappeler ah au conseil constitutionnel ba ñu ko saisiree ci suñu mémoire de défense euh, dañu ni que l'article 92 de la constitution de la république du Sénégal. ainsi que la jurisprudence consacrée dans votre décision numéro 3E 2019 du 20 janvier 2019 en son paragraphe 4. Considérant que l'article 92 de la Constitution interdit toute voie de recours contre les décisions du Conseil constitutionnel. Qu'il résulte que la réclamation au sens de l'article L122 du Code électoral ne peut pour objet pour effet ni la réformation ou l'annulation de la décision fondée sur une erreur dans l'appréciation des circonstances de fait ou l'interprétation de la règle de droit wax wax wax la procédure devant le conseil constitutionnel n'étant pas contradictoire mais loolu conseil constitutionnel tenir a agi dans ce sens en en en en 2019 lu tax defu ko bi yoon parce qu'il s'agissait encore de Karim Wade gis requête bii conseil constitutionnel nee naa la kenn du def kenn du def recours contre les décisions du conseil constitutionnel da ngay lan nga mën a réclamer la liste loolu rek lañ la may mais dañu nangu ñu def un recours contre sa décision am conseil constitutionnel daf ko nangu alors que article 92 daf ko wax mais ça c'est pour éliminer Karim moo tax teniruñ ci compte